Czy budzian bito, giego, co suża soit un moment de plaisir, Lobou Mame Diarra Bousso est au cœur des foyers sénégalais depuis plus de 20 ans. Situé au kilomètre 18 de Rufisque à Dakar, Lobou Mame Diarra Bousso est une société 100% sénégalaise spécialisée dans l'enfûtage et la distribution de gaz butane. C'est une équipe de plus de 200 collaborateurs guidés par une même volonté, participer activement au développement du Sénégal. Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte, faisant de l'Obogaz la marque préférée des Sénégalais. Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne cessent de nous renouveler leur confiance, faisant de nous le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la kg. Nous avons Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre recherche permanente d'innovation et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de quatre sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. L'Obomam Diarra Bousso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrousels, composés chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production de bouteilles par heure, ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais le gaz butane reste un produit inflammable. Et parce que la sécurité est primordiale pour nous, nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs, mais également des riverains. Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas là. Nous diversifions aussi pour devenir un acteur majeur des et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque Lobo Oil, avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au-delà de nos frontières, faisant ainsi de Lobo Mamdiara Bousso un acteur incontournable de la sous Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest pour conquérir de nouveaux marchés. Pour continuer à vous accompagner partout, et parce que vous méritez toujours mieux, Logumam ne cesse d'innover, de voir plus loin. auzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim asalaatu wasalaamu aleyka ya saydana ya waliyallahi ya nura masabi adaratillah mbokk yi di safoo al imran tv asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéen ñi ngeen xamante ne yéen a ngi toog di seetaan sunu gan nuyu nañ leen bu baax di leen jaajëfal day di leen fàttali ngeen aimé commenté te te partagé ni ko oustaz di waxee ci noonu itam la ñuy jaajëfalee suñuy partenaire waa Sososa resto nga xamante ne neex na lool ci añ ak waa lob bu jaara mam buso mam jaara buso plutôt tey nag moom dalalati nañ nga ndaanaan kom sunu gan moom ay ndaanaan kese lay dalal te réew mi dafa fees del ak i ndaw yoo xamante ne ay ndaanaan lañ xanaa rek ñu nekk sëñ Momar Mbaye asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi sëñ soxna si Kumba ñu ngi lay euh, ziar bu baax a baax. di leen nuyu di leen jaajëfal ci dalal bi ngeen ñuy dalal. macha allah sëñ Momar jërëjëf naka jekk réewu Sénégal ku ko xam ay ati at coowal suuf dafay yàgg. kon nag yeyoo nañu ñu ñu ñi nga xamante ay ndaw na la ñu xam lan mooy immobilier ci secteur boobu surtout coowal li nga xamante ne ay coow la ay xëccoo ay. coow lu bëree bëri te nag sëñ Momar dañ lay bàyyi nga présenté wu balaa ñoo dugg suñu sujet incha allah. waaw euh, soxna Kumba euh, damay sawar ci wax dëgg yàlla def benn présentation ci fii ci nga xam ne moom mooy Imran TV di leen jaajëfal d'abord ci kóolute gi nga xam ne am nañ ko ci man euh, ba dalal ma tey maa ngi wuyoo ci Momar mbay di conseiller en immobilier di gérer benn cabinet de consultance en immobilier voilà d' accord maanaam mm. consultance koo xamante ne bëgg na dara ci secteur immobilier. day ñëw ngeen xelal ko orienté ko ba mu xam daal ni muy doxalee. sañ sëñ Mamadou kon après ñu gisee incha allah. <laughs> comme que nag waxtu yi du xaw a bari torop mm-hmm. tey mm-hmm. li nga xamante ne sénégalais yi fan yi coowal suuf naka jekk dafay yàgg comme ni ma la ko waxee. Mm-hmm. léegi dañoo bëggoon xam suñu laaj mu njëkk ban procédure nga xamante nit ki su bëggee terrain dina ko def ba am. terrain bi nga xamante ni moom la bëgg maanaam day ut ab Pape Doudou wala laay ne ko jaay ma terrain mhm. wala dafa am ay yoon wala ay ñàll yu mu war a jaar mhm. euh, soxna Kumba euh, question bu am solo nga posé foofu waaye defe naa balaa ma rebondir ci question boobu dafa am da may permettre rek ma def benn développement bu ndaw rek pour euh, mhm. mbokk internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan mhm. mën a am benn aperçu ci le milieu foncier mhm. euh, permettez d'abord permettez-moi d'abord maa ngi nuyu euh, ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan fii ci Imran TV di nuyu waa diaspora bi ñi nga xam ne vraiment am nañ kóolute si ñun di nuyu waa sénégalais de l'intérieur soxna Koumba ñu xam ne rek Sénégal suufu Sénégal dañ ko régulariser maanaam dañ ko def ay pàcc ñetti pàcc. dama yaakaar suufu Sénégal ku jël rek yaa moom de. waaw suufu Sénégal non dañ ko régulariser depuis dafa am benn loi bu ñuy wax euh, président Senghor moo ko tëggoon benn loi bi ñuy wax euh, loi 1964. Mm-hmm. Euh, ñu tëgg si ñu ne terrain terrain Sénégal yi. Mm-hmm. tey jii boo koy xaaj da nga koy xaaj ci ñetti xaaj. Mm-hmm. dafa am lu ñuy wax domaine national. dafa am lu ñuy wax domaine de l' état ak domaine des particuliers. domaine national bi nag. moom booy xool maanaam suufu Sénégal ci yëpp moo ëpp lim ci yore. maanaam quatre-vingt-quinze pour cent suufu Sénégal yëpp ci domaine national la nekk. cinq pour cent yi moo nekk yeneen lu ci mel ni mm-hmm. domaine de l'État ak domaine des particuliers te domaine de l'État boobu. Mm-hmm. da dégg ñu ne ay boo maanaam bàyyi yi ngay dégg. Mm-hmm. ñu koy jëlee ci domaine de l'État bi maanaam domaine parce que domaine de l'État dañ ko xaaj ñaari banqaas. mooy les domaines privés de l'État ngay doog dugg ci domaine des particuliers euh, tey waxtaan bi li ci gën a important am importance mooy domaine domaine national boobu moo waxoon sànq sama laytaayu waxtaan ne la euh, président Senghor mhm. dafa tëggoon benn loi bi ñu wax loi de 1964 mu ci wax ne domaine national bi ñu xam ne mhm. domaine national bi ñun ñëpp ñoo ko bokk muy yow Kumba man ma may ak mhm. caméraman bi ak ñëpp ñun ñoo ko bokk waaye ci biir domaine national boobu ñu ne kat état kat mooy jël couvre di ko téye ko ci loxoom di ko jéem a organiser. ndax ñu ko bàyyee rek maanaam dafay salfaañoo. Euh, mm-hmm. ci domaine national boobu nag euh, ñu fàttaliku ne euh, tey jii dafa am ñi nga xam ne dañoo jël suufu Sénégal domaine national bi teg ko seen i loxo. Mm-hmm. teg ko seen loxo. Mm-hmm. mooy les maires yi boobu laa ko wax pour ñëpp mën a comprendre les maires yi commune communes boobu. ndax bu njëkk ba maanaam pour cent yi. waaw dañ koo teg ci maires yi parce que bu njëkk commune la. léegi nag maires yi la. voilà léegi commune on parle de communauté rurale. Mhm. léegi après l'acte de commune. Mhm. mooy communes yi ngay dégg léegi. donc communes yooyu ñu jël maanaam suufu domaine national bi mën naa ne mhm. képp ku ci bëgg kayit si ñoom ngay jubal. dem parce que li tax ñu wax loolu ñu ne tey jii yow Kumba. boo nekkoon benn maire ba xam ne ñu ne par exemple yaay maireu Pikine. yow pikin tey jii yaa xam gox bi la ca nekk yépp yaa ko xam ay seeb la ñu soxla ci suuf. la nekk ci maanaam maire bi gox bi yëpp yaa ko xam yow ko en tant que maire. Mm-hmm. moo tax ñu jébbal la ne kat yow mii kat lépp lu jëm ci suuf ak këyit dañu la koy jëbbal moo tax ñu war jox jox leen ko ñoom. Mm-hmm. maanaam ba ci ñu dem ba ci ni ñu ne tey jii képp ku soxla maanaam euh, kër. ci mm-hmm. domaine national. da ngay dem au niveau de la commune maanaam mu defal la lu ñuy wax maanaam une délibération xaymal la këyit bu wane ne parce que yow kat abal nañ la pour nga dëkk. délibération délibération xam naa dinañ dugg léegi ci délibération bi mm-hmm. ñan ñoo koy joxe ak nu muy demee mm-hmm. waaye damaa bëggoon leeral foofu tuuti rek wax la ne la tey jii euh, bu ñu fàtte na titre de propriété yi xam naa mm-hmm. dinañ ci dugg am na question peut-être xam naa di ma ci laal tuuti titre de propriété yi dafa am yaa ngi dégg ñu naan délibération dañ ci dugg moom la ñu indi tey bail titre foncier dama koy wax sama waxtaan yi toujours ci chaîne ba di wax naan euh, euh, délibération état dafa na la mën nañu la ñoo ko bokk waaye dañ naan la kat ah, abal nañ la abal nañ la la ñu ne bàyyi ñu ne kat location la chaque année da ngay fay lu ñu fa ay redevance domaniale mm, xam naa peut-être prochaine émission yi ñëw dañ ci dugg mm-hmm. mais nañu ne nag titre foncier c'est inaliénable mën nga koo jaay mën nga koo hypothéquer mën nga koo maye. d'accord titre foncier et un dafa am différence. dafa am différence bail contrat de location la. merci beaucoup lee nag moom du contrat de location la mën nga koo moomal sa bopp. yaa ko sa bopp. donc foofu ci délibération boobu ñu ñëwaat ci délibération boobu tuuti. Mm-hmm. ñuy wax nan la ñuy amee suuf ci maanaam domaine national. Mm-hmm. wax naa ko léegi junj naa ko da dem au niveau de la commune. Mm-hmm. nga bind par exemple euh, gannaaw bu ñu jaayantee ba pare. Mm-hmm. te jii Kumba ñëw na euh, yoroon na benn toolam bee xam ne am na am na ci délibération mairie délibéré na ko mu bëgg ma ko jaay man Momar Mbaye daf may defal lu ñuy wax acte de cession te bu ñu fàtte ne domaine national. kenn amul droit jaay ko. ah waaw domaine national parce que lu ñu booloo la. <laughs> maa ngi ñëw li tax ñu ne kenn amul droit jaay ko mhm. ndax tey ji dañ ne mbirum mbooloo la mhm. dégg ko naa sànq dañ la ab dañ la abal pour nga dëkk mhm. xam nga lan nga am moom yow tey kumba tey soo ma jaayoon xam man lan laa moom mooy peine et yi la ma ca def étage ba ma ca tabax kër kër ardoise ba ma ca tabax barak ba ma ca def loolu laa moom mais suuf si domaine national maanaam maanaam commune ñu ñoo ko moom mbooloo maanaam euh, gox beeku askan weeku moom moo tax ñu ne bañ na ko ba sax yow jaayante buy am. Mhm. dañuy def lu ñuy wax dañuy bind lu ñuy wax maanaam acte de cession mhm. maanaam mhm. Kumba cédé na ay penam monsieur Mbaye. d'accord maanaam acte de cédé day dem ci mairie bi. pour def ko non acte de cession bi ni muy demee mooy uh-huh. bu ñuy jaayante. Uh-huh. da ngay dégg am na ñu koy wax acte de vente pour yombal ko. acte de vente da koy dégg donte uh-huh. on on on parle pas d' acte de vente. li ñuy wax mooy acte de session tey jii yow bu ñuy jaayante yow mën nañu ko defee ci oto bi mën nañu ko defee ci huissier mën nañu ko defee ci ci ci kër ga. Mm-hmm. mais l'essentiel këyit gi ñuy tënk man ak yow. Mm-hmm. këyit googu li ñuy de cession maanaam kumba. Mm-hmm. bon j'atteste que man jaay naa monsieur mbay ci domaine national ba man séddee naa ko samay pen. maanaam benn terrain de cent mètres carrés ah. à prix bi nangam témoin yaa ngi nii këyit googu. ngay jël. après dem ca mairie ba boole ko ko sa copie d'identité mhm. ak sama copie d'identité ak mhm. copie d'identité témoin yóbbu ko mairie pour demander mhm. lu ñuy wax une délibération ci suufu domaine national je comprends ñi nga xamante ñu ngi koy bàyyi xel yaakaar naa ni nañ sëñ Momar leeralal ne ki nga xamante ne bëgg na jënd terrain ni muy jaar kon nag nañ ko bàyyi xel te bañ a sàggan nga xamante dóorkat yi genre laa yi di ñu dóor rek euh, ci noonu rek la ñuy dugalee du duggaatee ci question boo xamante ne ci laf boobu la nga xam domaine yooyu noonu tudd mm-hmm. moo war a jaay maanaam bien immobilier euh, une personne morale mm-hmm. wala étatique mm-hmm. wala particulier waaw d'accord loolu day dépendre ci maanaam ban type de titre de propriété la da ciy dépendre maanaam dina la gën gën a te tey ji bu nekkee domaine national bi la ñuy délibération yow délibération mën nañu ne par a ci nekk yow euh, madame Kumba tey ji yow boo koy jaay yow mën nga koo jaay am na ñu def sax huissier jël huissier muy jaay donc sax am na ay polémique yu ci am mais nag huissier mën na koo jaay maanaam pour wax la ne li ci domaine national bi daal yow ku nekk maanaam mën nga séddee say peine mm-hmm. léegi nag bu nekkee ci boo yi maanaam bàyyi mm-hmm. ak titre foncier yi mm-hmm. dañuy faral di wax ñu koy wax ci internaute yi ne euh, notaire moo war a jaay titre foncier notaire notaire foofu dinañ fa dugg waaw parce que Momar mbay en tant que mu yor cabinet amul droit jël terrain doonte sax bon gis nañu dëkk bi gis lu nekk dem jël terrain def euh, li ñuy wax euh, sous-seing privé. Mm-hmm. maanaam ak yow ak ñoo ñu toog jéem a xool à l'amiable. Mm-hmm. nu ñuy jaayee titre foncier non. Mm-hmm. parce que notaire bay jaay titre foncier moom tey jii moo am droit de regard ci yenn affaires yi nga xam ne bu demee dina gis lépp. ndaxte tey jii euh, soxna waaw sëñ Momar yaa ngi tudd notaire sànq luy notaire au fait maanaam notaire man la man mën naa jékki-jékki nekk notaire wala. wa le rôle du notaire au fait. waaw notaire dafa jël dafa génn ci benn bànqaasu droit. droit droit la ñu jugee ñu doon ñee xam ne. moom la ñuy wax les officiers ministériels. Mm, d'accord ñu doon ñee xam ne wax dëgg yàlla dañ jox cër loolu macha allah. ñu mm. jàng ba xereñ toll ci njàngu maanaam foncier parce que notaire yemul kese mm. xam nga keroog rek maa ngi maa ngi koy nuyu au passage euh, ñu fàtte suñu kii bi suñu kilifa gi nga xam ne moom mooy euh, tout ce qui directeur impôt mu koy wax. notaire day dem ba ci sax yenn saay oto sax war nañ ko mën a dem jaayante. Ah. notaire yemul kese si suuf mariage bi ñëw na nangam nangam mais comme tey foncier moo ñu intéressé si la ñuy wax. day wax naan titre foncier boobu notaire moo ko mën a jaay ndax tey jii dañu xam ne euh, yow balaa ngaa jënd titre foncier da ngay dem au niveau conservation nga laaj lu ñuy wax euh, droit réel. droit réel boobu mooy lan droit réel bi mooy wax maanaam suuf si ma kumba bëgg a jaay muy titre foncier. Mm-hmm. est-ce que am na charge est-ce que kenn leblewu ko banque. Mm-hmm. est-ce que mm-hmm. amul xëccoo ci biir. boo demee yow ba nga jël euh, kii boobu man da ngay gis si biir fu ñuy bind charge foofu moo lay wax ne kat suuf si am na problème. waaye notaire bi nag moom loolu moo ko dàq ñëpp parce que moom bu demee moom loolu yëpp da koy jël même certificat de mariage yooyu yëpp daf koy laaj ah waaw kon titre foncier bi ngay gis nii notaire moo ko war a ah, jaay mook baay bi donc maanaam si je comprends bien la notaire maanaam rôle primordial lay jouer ci mbir bi mhm. mooy tax nga sécuriser sa terrain ci loolu rek la ñuy duggee ci mhm. maanaam mhm. quatrième question bi nga xamante comment sécuriser donc son terrain son kii bien immobilier maanaam comme que yow notaire bi sànq ba léegi moom nga koy moom ngay tudd est-ce que notaire bi moo lay permettre nga sécuriser ko wala lan d' accord euh, notaire bi euh, daf lay dimbali wax nga ko léegi daf lay dimbali nga sécuriser sa bien. Mhm. si njënd mi ndax notaire bi day def ay enquête yu bëri da koy def vérification da koy def day dem au niveau des impôts vérifier yëpp da koy def ba xam lépp baax na. Mhm. parce que sax am na notaire yaa xam ne yow tey jii bala nga jot sa xaalis. il faut mu mhm. vérifier ba pare. kon le notaire peut être un détective privé. bon détective privé <laughs> pas je pas trop exagérer. mais je dirais bi daal euh, il est tey ji yow boo ko jébbalee say dossier ne ko kat damaa bëgg kat fay la 10 pour cent pour nga dimbali ma. Mhm. ma mën a maanaam jëndanti jaayante terrain bi donc dina la ci mën a dimbali. Mhm. waaw boobu daal moom xam naa ne notaire moom mais détective privé moom <laughs> <laughs> léegi man su ma bëggoon sécuriser sama terrain ci notaire kese laa mën a jaar wala am na yeneen façon à faire pour sécuriser son bien bien immobilier. waaw euh, toujours damay delluwaat ci li ma bëggoon wax rek. Mhm. Euh, mooy day dépendre ci titre propriété yi. xam nga ne notaire du jaay délibération. tout à fait. waaw waaye nag notaire sañ na jaay peine et impense. mooy lan. voilà peine impense mooy tey jii man am naa délibération ba xam ne 150 mètres carrés la. Mhm. ma tabax ci benn immeuble bu R plus 3. Mhm. am na fi boo demee fii Malika plage. Mhm. maanaam booy xool kër yëpp ay délibération lu ci bëri parce que domaine coutumier la woon. donc tey jii notaire bi bu ñëwee par étage boobu lay jaay mais du jaay euh, suuf si waxoon naa la jaay. waaw peine et impense la lay defal. peut-être mën na koo jaay. man nag dam gis nga man suuf si damaa yaakaar moom la ñuy jaay de waaye maa ngi soog xam ne suuf si ndeket kenn jaay ko. waaw net délibération kenn ko jaay. parce que ñu askan wee ko moom maanaam li ca kaw nga moom. mais titre que état daf la koy loué bu dee bàyyi wax naa ko léegi bañ see dellu si waat. Mhm. Euh, bu dee titre foncier bi moom nga ko hypothéqué yaa moom. Hmm, donc euh, la question c'était encore. Euh, comment sécuriser son bien. comment sécuriser ma tontu ne la ça dépend ci titre propriété bi. bu nekkee yow da ngaa amee délibération da ngaa jënd bien ba pare bëgg ko sécuriser toujours li ñuy conseil internaute di ko conseil nit ñi mooy dafa am lu ñuy wax euh, une vérification physique une vérification administrative mooy jënd naa ba pare si le plan physique damay dem clo def clôture su ma defee clôture ba pare mën naa ci bind terrain à ne pas vendre da ngay gis sax waaw donc donc da ngay gis benn astuce sax des fois ci terrain yi ñu naan procureur ñu bind benn tabal def ci procureur Ndiaye <laughs> ah wala sax dem nañ ba gis sax ci terrain yi <laughs> ah, ah. nit samp fa benn béjjën si pour eh, pour intimider parce que loolu mooy wan la loolu mooy wan la ne maanaam problème foncier dafa am Sénégal bu demee bay nit jël ay béjjën di ko samp ci terrain pour tiital maanaam les euh, soi-disant arnaqueurs yi nga xam ne ñëw pour jaay seen mm-hmm. terrain yi kon donc foofu moo wax la ne la ça dépend bu dee délibération donc pour nga euh, sécuriser ko clôturel wala nga def ay ay ay ay léegi nag sur le plan administratif yow nan nga mën a sécuriser mooy terrain domaine national bu ñu la ko jaaytee de grâce ñu koy wax nit ñi jëlal maanaam acte de vente bi nga jël copie d'identité bi ak délibération bi ñu la joxoon mhm. nga dem au niveau de domaine nga enregistré terrain bi domaine domaine nga enregistré ko au moins yow boo demee domaine tey jii man su ma ko enregistré kumba ñëw ëllëg bëgg a enregistré domaine dañu naan ko kat domaine national bi kat monsieur Mbaye moo fi enregistré woon turam. très trop. Mm. parce que domaine tey jii boo ñëwee jënd domaine national. Mm. xam naa prochainement dinañ ci wax nga bëgg dugg bàyyi par exemple. Mm. yow boo ñëwee dañu naan la il faut nga enregistré terrain bi. dañuy defal li ñuy wax fiche de liquidation. fiche de liquidation mooy dañu laaj sa délibération. yow tey jii war ngaa fay tey jii cinq pour cent de la valeur vénale. Hmm, d'accord tey jii tey jii jaay nga terrain bi cent mille jaay nañu ko 500000 5 pour cent de 500000 war nga koo fay. Hmm. waaye nag boo toogee jour bi nga jaay bu demee ba mat un mois foofu da am ay pénalité hmm. tey boo waroon fay par exemple 400000 euh, euh, mën nga fa fay cent mille est ce comprendre nga donc tey jii ñu xam ne tey jii nañu gaaw dem enregistrer suñu terrain yi au niveau des impôts et domaines. d' accord léegi si je comprends bien loolu bokk na ci moyens yi nga xamante ne nit ki mën na ko am pour identifier terrain am. Mhm. parce que question boobu sax laal bëggoon laaj ban moyen laa mën a man su ma amee terrain def mhm. ba nga xamante ne. man mhm. naa xam ne man Koumba Sow maa ko moom et monsieur Mbaye moo ko moom. voilà donc moo tax ma tontu ne la ci domaine national. noonu nga mën a def jëlal sa terrain nga dem enregistré au niveau des impôts et domaines sa tur nekk au niveau des foncier moom defe naa foofu moom sécurité am na parce que bi moo la sécuriser mm. déjà sur le plan euh, euh, administratif notaire bi moo la sécuriser mais sur le plan physique mm. yaa war a sécuriser sa bopp yaa war a dem terrain bi tabax wala nga clôture wala nga fondation mm. parce que comme mooy dem bu la neex tam nga intimider comme gars yi ñuy def ah, voilà wóorul <laughs> ñu kii voilà léegi comme que sànq ba léegi maa ngi dégg ngay tudd titre foncier mm-hmm. titre foncier titre foncier mm-hmm. dama bëggoon xam maanaam différent titres foncier yi am maanaam lan la maanaam ci côté euh, différence yi maanaam quels sont les différents titres dans le foncier titres yi am ci foncier bi xam nga propriété yi quoi maanaam sànq da nga tudd ay domaine waaw léegi da nga may ñëwal ci <laughs> foncier waaw titres yi waaw léegi moom laa <clears throat> excusez-moi moom la doon wax sànq ma ne euh, loolu ñu ñuy wax titre de propriété en droit de propriété mm-hmm. te xam naa def nga def nga droit yoo xam naa di nga xam li may wax. ay droit réel yooyu. <laughs> voilà donc titre de propriété koy wax. <laughs> Uh-huh. donc am na <clears throat> délibération. Uh-huh. am na titre foncier. Uh-huh. am na bail. am na permis d'occuper. tey jii boo ñëwee Pikine Géejawaay am na côté yoo xam ne suñu maam yi yooyu suñu grand parents yi. ñoom ay permis d'occuper la amoon. mais léegi avec euh, administration dina la yombal pour léegi nga jóge permis d'occuper dem directement de euh, titre foncier. Mm-hmm. dina la koy yombal xam nga tey jii boo amee délibération da ngay jaar ba jaar baay ba pare baay. Mm-hmm. Mm-hmm. boo amee sa baay bu génnee nga dem titre foncier. waaw léegi nag jàppal ne tool ñett yi moo fi am pour l'instant yi nga xam ne ràññee nañ leen mooy délibération. titre foncier ak baay yi lay wax titre de propriété au Sénégal yi ñuy gën a ràññeente. titre foncier de xam naa ni. Mhm. faw rek nga wax ñu nan lañ koy amee ndaxte daal man daal xam naa ni. Mhm. <laughs> sécurité daal fa la nekkee. Euh, waaw damay faral peut-être damay jox benn alerte rek te waxoon naa ko ci sama benn vidéo. Mhm. da ngay dégg souvent ñoo la titre foncier global képp ku la wax titre foncier. parce que defe naa tey plateau bu ñu fi toogee euh, bokk na ci lu ci gën a am solo mooy ñu wax nit ñi lu ñuy sécuriser comme ni ko waxee léegi léegi. nit maanaam dalalee seen parce que foncier bi ñëpp ragal léegi. damay dégg ñu naan titre global. loolu amul. titre foncier global am na. mais képp voilà titre foncier global maanaam da nga naan titre foncier global comme son nom l'indique mm-hmm. global la maanaam mën nañ ci extraire titre foncier individuel. Mm-hmm. est-ce que comprendre nga mën nañ ci extraire titre foncier individuel. waaye léegi da dégg ñu naan titre foncier global. te nit ki lay wax titre foncier global la lay jaay. parce que dégg nañu rek ñu ne clients yi léegi nit ñi ni ñuy jëndee mooy titre foncier la jënd ñu ne léegi titre foncier global képp ku la ko wax ma numéro titre foncier bi. numéro titre foncier boobu moo lay permettre nga dem au niveau des impôts pour mën vérifier. Hmm. comprendre donc titre foncier ni ñu koy amee mooy boo jugee délibération. da ngay dem bàyyi ba pare. Hmm. bàyyi peut-être bu ma permettre ma dugg ci bu dee temps bi dina ma. Hmm. moom kay dañ ci dem. fawul leer euh, waxoon naa la ne la. Eh. boo jundee ci domaine national ba pare ba am sa délibération. maanaam nit ki jaay na la ba pare. Mhm. acte de vente bi jël nga ko da ngay dem mhm. enregistrer acte de vente bi. loolu waxoon nañ ko. waaw tout à fait boo ko enregistré nga jël ñoom dañu lay defal benn cachet ci biir acte de vente bi jox wax ay quittance. Mhm. nga jël acte de vente boobu boole ko une demande adressée aux aux impôts. nga boole ko copie d' identité yi nga def ko ay exemplaires ak plan NICAT li ñuy wax NICAT. nikat moom mooy carte d'identité terrain bi. moom laa naroon laaj de. waaw <laughs> dugg naa léegi nikat boobu moom mooy carte d'identité terrain bi. Uh-huh. yooyu ngay jël boole ko nga dem déposer ko maanaam au niveau des impôts mm. et domaines léegi impôt et domaine na bu ko defee ñoom ñu dañuy nag dañ koy saytu balaa ñu la jox booy bàyyi dañ koy saytu de mm, ndax bàyyi daa am fu muy jaar tey jii service cadastre yi dañuy dem ci terrain bi vérifier ndax kat kumar euh, mii tey jii terrain bi bu mu moom ci domaine national est-ce que raay waru faa jaar est-ce que hôpitaux waru fa am est-ce que est-ce que ay question technique yi nga xam ne dañ koy posé. man su ma bëggoon am baay daal fi mu nekk ni moom nga may wax fu ma bëggoon am bàyyi ci réewum Sénégal. procédure mm-hmm. baay laa dugg na maam sa dossier yow dugal nga ko au niveau des impôts et domaines. Mm-hmm. ñoom du ñu ñëw rek jël rek commencé na la ak jox la baay déedéet dañuy dem ay enquête enquête defee enquête ya pare xool est-ce que yow li nga bëgg méngoo ak plan urbanisme Sénégal parce que urbanisme dañoo yor lépp luy plan Sénégal. est-ce que fii ëllëg nu ñu fi jaarale a est-ce que est-ce que est-ce que bu ñu paree jël document boobu jébbal ko au mm. niveau des impôts mu jaar urbanisme urbanisme jël dossier bi parce que procédure bu muy jaay moom bu muy jaar mm. moo tax souvent sax nga dégg nit naan man mii sama baay bi dafa yéex a génn ah, mais c'est tout à fait mais nag xam nga problème bi mooy dañ naan da ngay dégg lii ni problème bi mooy dañ naan la bàyyi toujours mm. entre trois et six mois la waaw loolu jàng naa ko dafa da mais souvent am na ñoo xam seen i boo avant moo génn def na trois ans bari na de sëñ Mbaye. bari na mais problème bi lan la mooy procédure bi muy jaar la. mais monsieur Mbaye cela ne justifie pas ça. non euh, c' est normal xamul tax tey jii ma wax la benn affaire euh, ma jox la benn exemple euh, domaine national bi nga xam ne ñëpp ko bokk. Mm-hmm. am na ñu doon naan domaine national ma dolli ci wax na mooy ce sont les terrains non immatriculés mooy terrain bi xam amul tur amul numéro. mais imaginez tey jii président de la république wala tey ji état jël tey jii. Mhm. maanaam terrain domaine national yëpp jox ko baykat bu nekk ne la jox nañ la identifié bu nekk. Mhm. mais baykat bi day jël kayitu këram dem tay la ko banque. banque de proximité yi yi ngay dégg ay crédit mutuel ak yooyu ñu jox ko xaalis léegi bu yàggee day dem ba domaine national ci kaw suuf yi domaine na Sénégal mhm. banque yi ñoo moom suuf suuf Sénégal si yëpp te loolu erreur la erreur bu mag a mag la kon donc moo tax euh, domaine national dañ ko war a domaine national. dañ ko war a préserver. parce que alalu ñëpp la waree. alalu ñëpp la alalu ñëpp la. dañ ko war a parce que si biir domaine national am na yoo xam ne sax kenn du ko jaay. Mhm. kenn du ko kenn du ko joxe mooy lu mel ni par forêt classée yi. lu mel par exemple lu mel ni géej yeeg et cetera et am na si yoo xam ne day rester si domaine national. kenn du ko joxe géej xanaa. Mhm. xanaa fa ngay yem moom. ku bëgg joxe ba joxe soobee yàlla dootoo joxe tey. voilà mu ngi macha allah monsieur Mbaye wax dëgg fa yàlla nous sommes très contents des réponses et mm, satisfaits. Mm, mm. c' est li nga fi expliqué kon problème warul woon mën a am ci Sénégal. léegi dañuy duggal rek ci yi nga xamante ne dañ koy jànkuwanteel ci domaine du foncier. ndaxte coow li bari na. te amaana sax côté yi tane na waaye suñ demee ci côté yi maanaam dinañ ci sax dugg ci ñaay bi incha allah nga duggal ñu ci problème yu baree bari yi ci xew rek. Mhm. waaw problème yi ci xaw yu bari mooy euh, bokk na ci dama ciy soulever benn problème mooy da nga ci domaine national ba léegi parce que nee naa la quatre-vingt-quinze pour cent des terrains ci Sénégal domaine national la. coow li ngi dégg yëpp yi ci bëri foofu la coowul Sénégal yi ngay dégg coowul suuf. Mhm. jaay na kii moo ko moom xëccoo nañu tribunal boo demee juste buy àtte yu ci bëri problème mu suuf la. suuf la da ngay dem ñu àtte ki ñàkk na bokk na ci euh, may euh, prêter attention ci gars yi leen wax ne. Mhm. héritage sonal nañu monsieur Mbaye héritage da ngay gis nit mais nit ñi ku nekk n'importe qui waroon la mën nañ mën nañ la nax ci problème héritage mm-hmm. sama bàyyi moom moon terrain bi tool bi un hectare bi moo ko doon jaay nga gis benn doom jugee fële mm-hmm. juróom la ñu mm-hmm. kenn ki jaay wala ñaar ñi d'accord jaay wala ñett ñi d'accord jaay kenn ki yëgul tout à fait bu ñëwee jaay mu tëb fële jóge fële ñëw kat ne ah mankat kat d'accord moo woon ba ñuy jaay saa bàyyi ko moomoon kon man samay réclamer sama dû problème foncier commencé la mais da ngay dégg souvent la la famille Thiandoum mhm, là-bas déggoon nga ko fii mhm. mais problème boobu problème mu euh, famille la mhm. donc sax euh, euh, dégg ne problème boobu yooyu yëpp ay problème foncier la problème bu yàggoon sax moo tax ma wax ne li ci bëri ci problème yi lan la mooy problème mu la xëccoo ki jaay na kii jaayat na kële moo tax may wax foofu toujours nit ñi di leen jox benn alerte nit ki balaa ngaa jaay dafa am vérif balaa ngaa jënd terrain dafa am vérification yoo war a def mm-hmm. une vérification physique et une vérification administrative vérification physique bi lan la mooy tey jii yow boo may jaay terrain dama war a dem ca terrain bi xool ko mm-hmm. naa def enquête de proximité mm-hmm. tey jii sa terrain bi nga romb kat demal ci euh, jaaykatu jën bi nekk foofu wala jaaykatu mango bi nekk foofu ne ko kat waa suuf si kan yow koo ko déggu déggoo ci woon loolu la wax enquête de proximité war nga xool type de sol bi ah war nga xool distance bi ndax nekk na jege na tëli parce que booy génn dem di liggéey. Mhm. loolu la ñuy wax yëpp la ñuy wax. Hmm? une mhm. vérification physique dañ koy def suñu cabinet. oui. waaw ah, man faaw faaw ñu gisee fi fi mu ne nii man ma am terrain te say la ko hmm. léegi am na une vérification administrative balaa nga jënd terrain. Mhm. demal au niveau euh, des de des de la maire bu nekkee domaine national. nga xool nga ne am na benn lu ñuy wax ne livre foncier bu fa nekk. ñu ubbi ko ñu ne xool kat nga ne kat ah diw dafa bëgg jaay terrain est-ce que terrain bi moo ko moom ñu interroger livre foncier xool ndax terrain boobu est-ce que nit ki moo ko moom ou pas mm-hmm. boo fa paree demal cadastre je donne un exemple ka euh, cadastre jas gii jas gi mm-hmm. ñu bëri foofu ay zone rouge la zone rouge maanaam zone rouge mooy zone bee xam ne nit ñu waruñu faat jaay tabax dañ fa war tôt ou tard état daf koy soxla ah. <laughs> mais am na yu bëri yoo xam ne boobu suñ ko waxoon fii tey jii ñu bëri fi ñu toll ni dañ mooy loolu yow monsieur Baye li ngay wax cas critique na de. mais xam nga nit ñi tey jii boo gisee nit ñi dañoo dem ba ci côté aéroport bi. commencé mm-hmm. fa nangam nangam mais dafa doy waar c'est des kii yee xam ne c'est des euh, sujets yee xam ne nit ñi dañ koy ragal laal. mais zone rouge yi mi ngi fi mais pourquoi pas nit ñi dem ba kadas di xool ndax mais fi ma nar a jënd tey jii je prends l'exemple des des pôles. waaw kay dang ñu fay duggal sax nag problème pôle urbain bi nga mm-hmm. xamante Lac Rose. Mm-hmm. xam nga Lac Rose site touristique te mhm. coow li dafay bari lool ci zone yooyu noonu. Mhm. problème bi lan la exactement. Euh, waaw Lac Rose moom problème am mën naa ne mi ngi commencé depuis bu euh, président décrété les pôles urbains waxee ci waxu pôle urbain yi. Mhm. parce xam ne pôle urbain euh, du ma dugg ci yaatal tuuti rek mais pôle urbain pour lan la pour gën a taaral dëkk yi la pour gën a ubbi yoon yi pour gën a pour gën a parce que boo xoolee tey ji dëkk yi ni ñu koy tabaxee ak bidonville yi gis nga dëkk yi koy tabaxee. Mm, tout à fait lotissement yi gis nga ko mm-hmm. mais jëlal jam ñaajo par exemple. Mm-hmm. gis nga immeuble yi ñu commencé jëm ñu ngi naan mooy ville bi mooy ville bi nekk deuxième ville Sénégal. ah donc c'est fait. mais problème bi mooy bi ñu nee déclaré ne par exemple que am na zone yi xam ne mooy pôle urbain de Daga Xolpa yéen day am pôle urbain si quelque lañ lay limal. jam euh, ñaajo déjà le projet commencé nag ñëpp koy gis. pôle urbain de Lac Rose tamit dafa war a am. dafa war a am mu ne. man euh, mais monsieur Mbaye nga baal mais Lac Rose xam nga ci zone des Niayes la bokk. bokk na ci xaw ma pôle yeneen li. mais suuf si dafa baax. te Lac Rose dafa naat macha allah zone la bu mm-hmm. neex. Mm-hmm. torop nga ne ma Lac Rose pôle la comme genre ni jam jaay nekkee presque. rëyee noonu ñu koy tabax noonu. Mm. la suñu Lac Rose bi ngeen bëgg koo yàq loolu. non ñun bëgguñu ko yàq du man. ah euh, say mbokk. non du man du samay mbokk xam nga tey jii loolu yëpp c'est pour bien faire. Mhm. xam nga point bi dafa sensible mooy point bi dafa sensible parce que tey Lac mhm. da nga jël kër Balla. Mhm. kër Mar kër Maram ñu tabax ay étage ay xam ne fa la ñu juddoo. fa la ñu raame. Ah, tey jii fa la ñu amee soxna wala fa la ñu amee borom kër. tey boo fa demee maanaam dëkk la. mais ne état nee na man damaa soxla foofu 7000 hectares léegi nag état la muy décider man. man man xaw ma ko wax dëgg yàlla man monsieur <laughs> ëllëg la muy dis mais xam naa ne daal ne état soxla na fa 7000 hectares allongé pour euh, jam kii euh, Lac Rose boobu. Mm. xam nga ne 7000 hectares dafa bëri 1 hectare égal combien de mètres carrés. égal 10 000 mètres carrés. bari na état mu ne 7000 hectares laa soxla mais coow li yaa ngi koy déggu ci réseaux sociaux yi ci internet bi Facebook bi. gaa yi neen la ñu neen fi ñu toll seen bakkal lañ ci teg parce que ñun seen i doom duñ juddoo foofu ñu leen fay jëlee man tiit naa ci lool maa ngi fàttaliku am na cas bu xewoon côté Déni Biram Ndaw mhm. c'était le même cas mhm. suñu suufu maam la kenn du ko laal mhm. est-ce que tamit jotul kon ñu bàyyi xel lu baree bari ndaxte yaakaar naa ne problème yaa ngi bari te li nga fi lim yëpp wax ko kon ñun Sénégal waruñu am problème yii nii problème yii terre à terre yi problème de terre Eh, suuf état daa soxla lii. Mhm. li sama suufu su maam la franchement man ça me cause des problèmes te suñ ci deful attention wala ñu ut ci ay solution mhm. su moytuwul maanaam euh, kii ay jooy dina bari fuñ ko foogewul. waaye léegi xam nga dañuy xool am amoon bi dañuy xool état état bu soxlawee euh, foofu mu soxla na ko justifier lan la fay def. ndax léew loolu pour euh, bien loolu pour est-ce que profit wu population bi la. Mm. est-ce que population war nañ ci gis seen bopp. Mm-hmm. dans ce cas nañu waxtaan nañ ko teg ci kaw taabal bi mais yow ñi ngay déloger nga leen teg ci condition yu baax. Mm-hmm. tout à fait. condition yu baax parce que doon jël nit ba pare fee xam ne doomam fa la juddoo fa la mm-hmm. amee teraangaam yëpp yëkkati ko ba pare jël ko di ko teg dans des situations yu doy waar. comprendre nga. donc loolu bañ ko dañ ko xool. Euh, même si sax ni ñuy fayee ni ñuy fayee ci domaine national. wax naa ko léegi. est-ce que état daf lay fay suuf si après c'est une question ndax tey jii bu lay déloger ndax da fay suuf si parce que bul fàttali ne suuf si domaine national la. Mm-hmm. waxoon naa la yow bañ lay jaay dañ la peine et soin mm-hmm. bi daal yaa ko moom. mais suuf si moom mais suuf ko. Uh-huh. waroo koo jaay suuf si mm-hmm. moomoo ko waroo koo jaay. donc mu doon problème bi nga xam ne daal euh, problème mu Lac Rose. xam naa euh, du ma ci wax lu bëri. di nga ci wax nag. xam nga du ma ci wax lu bëri. mbir mi xam nga tax <laughs> xam nga du ma ci wax lu bëri. Uh-huh. tey euh, internet yi ñu ngi may dégg Sénégal. Uh-huh. Euh, boo duggee sama chaîne YouTube. Mhm. dama see mës a wax utiliser ay support DGPI ñu may mhm. dégg. Mhm. bi ma utiliser ay support DGPI. dañ ma woo man dañ maa woo ne ma waroo wax ci Lac Rose waaw lii am na waroo wax ci Lac Rose ba sax xaw naa yëgal benn kii tuuti waroo cee wax. des fois dañ sama téléphone dañ may woo am na ñu may woo di wax ci affaire Lac Rose moo tax des fois Lac Rose dama koy frôle rek jàll parce que point bu sensible la. man su ma bañee nag parce que là là hmm. le problème qui se pose. Hmm. mooy man dama am problème que ni Lac Rose ak ni ma doonte xaw ma ko bu baax mais zone des Niayes je maîtrise là un peu. Hmm. léegi ñu bëgg ñu ne maanaam sur euh, état dafa soxla temps. nit ki yaroo fa. màggee fa après un jour viendra ñu war leen a déloger de ce fait ndaw ñi fay màggee dañu war a xam maanaam réellement le pourquoi et du comment. il mérite de savoir quand même. Euh, waaw loolu moom ki leen mën a édifier mooy état moo leen mën a édifier. d'accord état rek moo leen mën a édifier te xam nga ne dañ ne woykat ba nee na borom yat du xeex ak borom fital mhm. état rek moo leen mën a édifier ñi fa juddoo ñi ko moom état rek moo ci mën dara. Mhm. du man du yow du keneen. et gis nga xeex boobu. <laughs> Mhm. état rek moo ko mën a àtte. Ah léegi nag ndax ña muy woo. ñooñu ndax ñoo pare nañu pour juge. bu jug fa c'est une interrogation la. ndax état day bàyyi. point d'interrogation la. ndax déjà euh, il parle de de de plan directeur ne bientôt plan directeur bi la mu génn ndaraan yi ñëw plan directeur moom fu mu génnee rek mooy seen projet dañ koy teg dañ koy teg. donc laissons laissons le choix aux internautes ci ñaari question yooyu ñaari question yooyu voilà ku nekk xool daal li nga xamante ne moom la sa xel jege. voilà jox man damay ñëw nga joxal ma solution yi nga xamante ne war nañ ko am. ndaxte man damay tiit léeg-léeg xam nga suñu zone des Niayes la plus souvent askanu lebul ñoo fa dëkk mm-hmm. suñu mbokk lebu yu baax yi mm-hmm. te xamu ko xam lebu xam ne dafa bëgg suuf mm-hmm. te côté yooyu géej la presque ay Bonnoba Lac Rose yooyu yëpp géej la léegi tey problème bi su jugee tey amaana ay dënn dina ci jóg Mhm. coowal deret sax mën na ci tuur mhm. yàlla tere yàlla nañ ci mhm. yàlla musal yàlla na yàlla def ci sutura ba mu jàll ak jàmm ban solution tey ngay proposer ndaw ñi parce que xam nga xeex du mag moo koy def euh, jeunesse bi ñoo koy def ban solution nga leen di tegal tey nga xamante dina dalal seen xel sax nga ñu mën cee sukkandiku pour avancer waaw foofu moom damay woo euh, parce que xuloo booy àtte doo àtte benn part rek loolu euh, maanaam bokkul ci maandute donte sax du xuloo mhm. waaye la ñu jëm la parce que loolu si possible mu am mhm. parce que di ngay dem foofu dégg ñu naan am na mhm. benn wax bu ñuy wax ñoom waa foofu noonu benn dëkk ca lu ma koy lem nee nañu tey ji état bu paree pour jëlee ñu fi ñun bu yeboo mu yokk cimetière yi na yokk cimetière yi donc waxin la ça veut que nañ pour bàyyi suñu bakkan pour à que tey jii mais duñ fi jógee parce que fii la ñu xam loolu bu amee état bu ko leeree ne par exemple tey jii li muy bëgg a def parce que da ngay jàng bien primaire bien mm-hmm. secondaire jàng ko ko. am na lee xam ne mënul ñàkk ci doomu aadama. Mm-hmm. am na lee xam ne mën na ñàkk. Mm-hmm. jàmm moo gën lépp. mais état bu xamee ne am na benn assiette bee xam ne maanaam projet mën na ko fa tëddal. donte sax pôle urbain lu baax la. vraiment lu baax la mais nañu intégré nañ leen intégré. loolu mooy solution bi. ñu fa dëkk. nañu xool nu leen gën a intégré tey ji nañu xool assiette bi nga xam ne parti yi nga xam ne kenn laalagu ko mhm. parce que des na si Lac Rose mhm. na parti yi xam ne état na ko récupéré mhm. fi nga xam ne tabaguñ ko nañ ko récupéré buñ ko récupéré jéem a xool waxtaan ak seen i nu ñuy utee terrain d'entente mais li nga xam ne dëkk nañ fa ba pare seen i borom investir fa seen i pen seeni doom juddu fa xam fa yaroo fa jàngee fa ñooñu dañ leen intégré ci biir pôle bi fu ñu demee bay mën a intégrer te sûr que titre foncier yi moom ñu si bëri leen di intégrer après mm-hmm. mais ñi nga xam ne ñu ngi ci domaine national bi ñooñu nañ jéem a état nu muy waxtaan ak ñoom jëm leen intégré bu ko defee jàmm na ñooy mm. deret du du jub waaw loolu mm. solution pour mm. problème mu Lac Rose boobu au fait su ma déggee wax maanaam état bi na def euh, maanaam nekk yaa ji seex ah. bañ a def la force reste à la loi koy mm-hmm. faral di waxee mm-hmm. xoqatal fajul dara te mm-hmm. réew mi réewu jàmm la réew la boo xamante ne ay kilifa yu màgg yu tedd ñoo fi nekk kon loolu njëkk ak teraanga dara daaxu ko nga woo moom Momar nga nekk ah lii moo xew plan bi lii la Mm-hmm. Sénégal ñun ñëpp dañu bëgg mu avancer mais nga proposé ko loo xamante ne yenu na xelam maanaam dina ko attan mm-hmm. mais nga teg ko aussi si des conditions yoo xamante yu favorable la mm-hmm. mu mën koo accepter parce que neexul aussi nga juddoo ci barab màggee ci ñu teg la force parce que nag doole moom soo ko mm-hmm. jaayee nit rek maanaam da nga koy laal ci ego am nit dafa am ab égo boo xamante ne bëggul ku ko laal donte amuñu doole xanaa rek monsieur mbay dañ lay bàyyi nga joxe votre dernier mot sur la jeunesse nga xamante ne mm-hmm. tey soo leen doon conseillé même su nekkul sur le secteur de l'immobilier mm-hmm. nga conseillé un conseil boo xamante ne dina leen jariñ incha allah waaw conseil euh, xanaa rek di gërëm di wax ne xaw ma nag pub régie ndax permettre ko am déet. <laughs> amul benn problème di wax ne wax dëgg yàlla ñu ñu ngi fii euh, à la suñu cabinet bi nekk à la cité ASECNA. Mhm. donc dañuy def tout ce que conseil immobilier. cabinet bi nu mu tudd. Euh, MTM MTM immobilier. ñu ngi ci internet bi ci YouTube bi. Mhm. boo tapee MTM immo di nga gis ay conseils di gis vidéo yu bëri foofu mhm. conseil yoo xam dañ koy jox nit ñi. Euh, li may conseil jeunesse bi rek ñu doon benn jeunesse bee xam ne jeunesse bu xam li ñu bëgg. jeunesse bi nga xam ne xam ne ñoo yore racinu réew mi. Mhm. jeunesse bi xam ne réew mi yaa ngi fiy dégg lu nekk yaa ngi fiy dégg tout dret sécurité mhm. ah, yaa ngi fiy dégg agression yi dem na ba nit ñi sax léegi koo romb sax saaga mu ngi ko bokk léegi. Mhm. donc ki de kër laay woo jeunesse yi di leen wax ne. dañ doon benn jeunesse bu éveillé. xam li ñu bëgg. jeunesse ñi war a liggéey nañu liggéey bañ a yàkkamti parce que problème bi lu indi problème bi yëpp ci jeunesse bi lan la mooy yàkkamti am. te nit ki yàlla bu bindee. balaa ngaa dee da ngay dégg sax ñu ne nit maanaam balaa moo génn àdduna dana lekk dërëm bi mu maanaam wërsëgam day jeex ci kaw suuf mhm. jeunesse bi bañ a yàkkamti mhm. xam li ñu bëgg mhm. te ñu xam ne kat Sénégal bi jeunesse bee ko yore tout à fait ñu moytu violence surtout moytu violence xam li ñu bëgg loolu daal lay conseil jeunesse le travail jaamu <laughs> yàlla xam lu ñu bëgg man daal lay conseil jeunesse bi parce que Sénégal dañoo toll fi mu toll nii euh, jamono yi xam ne euh, ni da nga bëgg wax sax waaye doo wax surtout point bu dafa sensible. Mhm. ak yi ñu jëm ak euh, ku ne xam na ne bientôt <laughs> incha allah suba am na lu war a. suma juum lu xew kon donc mhm. point boobu dañ ci wax daal ne jeunesse bi euh, daal euh, nañu xool daal nu ñuy doxee xam ne mhm. Sénégal réewum jàmm la. te wax dëgg yàlla nit ki nag dëgg yàlla sa légitimité ak sa intégrité moom kenn waru ko violer te nañuy teg mbir yëpp ci dëgg ak kum foo mënti nekk nag ak foo mën a taxawee tegal lépp ci dëgg te yàlla dëgg la bëgg. Mhm. bul jaay doole jaay doole baaxul. Mhm. bul jaay doole euh, xamal ne réew mi ñëpp ko bokk. Mhm, réewum Serigne Touba la. réewum maam Abdoula réewum euh, Baye ñas la réewum maam Limaamu la ah réewum bu Kunta la ñu xam ne réew mi ñëpp ko bokk. maanaam képp ku nga xam ne maanaam cohabitation entre ñi nga xam ñi ngi fi yeewoo ñu bañ a yàq loolu. ñu jéem a Sénégal jëm sa kanam. ñu a sàmm suñu réew jëm a tàggat suñu réew tàggat suñu ndaw. loolu daal laay wax daal di dénk jeunesse bi daal incha allah merci beaucoup monsieur Mbaye xanaa dañ lay bàyyi nga remercier ñi nga xamante ne ñoom nga bëgg a remercier rek incha allah voilà donc loolu moom mënu foon jigee xanaa rek di <laughs> remercier dëgg yàlla surtout sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ak ñi nga xam ne am nañ kóolute suñ ñun duñu jox ay dossiers mm. parce que ñun on traite des dossiers surtout mm. diaspora bi mm-hmm. diaspora bi moom pratiquement booy xool actuellement euh, j'en pour vous dire que ne mm-hmm. xam naa dañ gis vidéo bi mm-hmm. Euh, euh, maanaam coopérative AIBD man coopérative bi xam ne ànd booloo jaspora mm-hmm. je suis le vice président. macha ñoom ñi ngi nekk ci jaspora bi. Mm-hmm. doon ay ndaw yoo xam ne dañoo liggéey booloo. Mm-hmm. bëgg a préparer seen retour au pays. di leen nuyu au passage rek. ay jàmbaar waaw di leen wax ne fii Imran TV wax dëgg yàlla. leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla tamit yàlla eggali seen i projet mhm. euh, boo fa jógee di nuyu tamit euh, vraiment samay collaborateurs samay collaboratrices yi nekk au cabinet mhm. sama directeur adjoint Abdoul Sam amadu Sam mhm. di nuyu wax dëgg yàlla ki nga xam ne mooy sama assistante mooy Hawa Ndaak Mbay Kenge bàyyi ñu kenn surtout nag sama soxna nga xam moom di toggal ceeb bu neex surtout ah <laughs> donc bàyyiwuñu kenn daal ku lim juum voilà donc euh, moom moo indi ceeb bi des fois di indi gars yi di alter di nuyu wax dëgg yàlla samay jege ñaale ak ñëpp waa Imran TV di leen ñaanal télé bi yàlla na ko yàlla dem mu doon ba télé ba xam ne ñu koy dégg fépp wax dëgg yàlla parce que télé bi dafa am solo tey jii mm-hmm. luy wax ci diine te boo duggee di xam ne tey jii tag mm-hmm. diine la ñuy wax mm-hmm. di wax boo ñëpp nag diaspora bi da leen seetaan Imran TV donc télé bi la ba xam ne moo leen di yee ci lu bari. Mm-hmm. incha allah merci beaucoup monsieur Mbaye macha allah <laughs> ravi de faire votre connaissance kontaan nañ trop ci dalal la ci plateau bi comme ni ma koy waxee sunu gan moom ay ndaanaan rek lay dalal mm-hmm. te man saa su ne dama ciy jariñu di la mm-hmm. remercier bu baax baax di la jéggalu ci déplacement bi ak coono yi nga xamante ne teg nañ la ko ba dëgg fa yàlla ñu ngi la koy jéggalu bu baax baax xam nga yittee jamono daa bëri te jot amul ñu ngi la koy tuubal di remercier madame Mbaye mi nga xamante ne moo la bàyyi <laughs> ñëw xam nga su la bàyyi woon doo ñëw ak euh, tout tànk yeeg ñëpp di remercier Tanfa Diallo mi nga xamante ne moo dox ba invitation bi en tout mhm. ainsi que toute l'équipe Al Imran TV mhm. suñu techniciens yi ak suñuy caméraman mhm. ñi nga xamante ne population bi la aussi ñu bàyyi xel bu baax a baax li monsieur Mbaye wax ndaxte coowal suuf dafa bëri ay dënn yoo xamante ne da ciy jug rawatina ci mbirum dono te àdduna comme que ñun ñëpp dañuy faatu bàyyi fi suuf si te suuf si du mës a deñ du mës a raaf kon bu baax a baax di jëf loo xamante ne dëggu kese la di xool euh, suñu diggante ak suñuy boroom bu baax a baax ndaxte mën naa sóoraale ko loo xamante ne da koy dàq te doo ko mës jot hmm. na la leer ne am na loo xamante ne mu ngi lay dàq te dina la jot muy faatu kon nag euh, lees mënula pencoo des lees mënula paccoo des koy pencoo ti yaakaar naa ne monsieur Mbaye réew mi kenn mënu koo paccoo mm-hmm. kon nañ ko pencoo rek ndax jaam am di leen mm-hmm. jégalu bu baax a baax ci rëkk-rëkk yi nga xamante ne ñàkkul génn na suñuy làmmiñ mm-hmm. di leen ko tuubal di leen jox dig daje suñu gan fii ak fukki fan ak juróom incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jaa ngeen jëf surtout suñuy partenaire alhamdulillahi alladi alhamdulillahi alladi aghnani wa a'azzani yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak video yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da di bés fi nga xam ne moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy seen bi nga xam ne mooy leen jàngal seen diine di leen ci mbirum àdduna. repas soit un moment de plaisir, Lobou Mame est au cœur des foyers sénégalais depuis plus de 20 ans. Situé au kilomètre 18 route de Rufisque à Dakar, Lobou Mame est une société sénégalaise spécialisée dans l'enfûtage et la distribution de gaz butane. C'est une équipe de plus de 200 collaborateurs guidés par une même volonté, participer activement au développement du Sénégal. Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte, faisant de Lobogaz la marque préférée des Sénégalais. Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne cessent de nous renouveler leur confiance, faisant de nous le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la 9 kg. Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre recherche permanente d'innovation et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de quatre sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. L'Oboumam Diallo Bousso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrousels, composés chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production de ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais en toute fiabilité. Le gaz butane reste un produit inflammable. Et parce que la sécurité est primordiale pour nous, nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs, mais également Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits pétroliers et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque Lobo Oil, avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au faisant ainsi de Lobo Mame un acteur incontournable de la sous-région. Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest pour conquérir de nouveaux marchés. Pour continuer à vous accompagner partout, et parce que vous méritez toujours mieux, Lobo Mame ne cesse d'innover, de voir plus loin.